ci li xew léegi ci jamono ñëpp di ñëpp di daw jëm ci maanaam mbay mi ñëpp di daw jëm ci agriculture presque ñëpp dañu naan demal nga béy. Mhm. tey euh, Cheikh béyoon na bu yàgg. 150 plus de 150 dool abonné ko ci Sénégal. waaw. te yemul ci ay ay centaine d'hectares la ñuy wax ñenn ñi dizaine d'hectares. ñenn ñi mhm. centaine d'hectares te loolu. Mhm. comme ni ñu war ci stratégie bi la parce que mooy le plus grand entrepreneur sénégalais. Mame Cheikh Ibrahima Fall. te moom day xool spécialité dëkk ba. mu def ko bu dee Saint-Louis nekk na commerçant. Mhm. formé na ay tailleur mhm. formé na tey jii ay daara tarbiya surtout daara tarbiya yi nag. surtout mooy l'école de formation. Mhm. mais également des des instruments de conquête foncière. moom mooy développer un peu le mouride. c'est-à-dire que économie mouride boo duggee dëgg-dëgg foofu la jógee. parce que bu dee tey jii euh, malaam ñu ngi ci nawet bi ñoom ñëpp dañuy dellu seen i dëkk. Ah. pour dem bay ji. mais nag bu ñu nekkee ci noor bi dañuy ñëw si Dakar Ndakaaru Ndiaye wala ci capital yi di jaay ay pajaas di fa jaay leneen ak leneen. Mm. tey jii moo indi maanaam yi yi nga gis nii yëpp ay marché njaareem yeeg. ay salle de vente ay salle de mm. yëpp loolu moo ko fi mm-hmm. bu ñu paree ñu delluwaat seen dëkk. waaw dañuy noor jàng difa jàng alxuraan di fa jàng métier. Mm-hmm. donc loolu yëpp ci dara tarbiya yi la tàmbale. Mm-hmm.